yàlla suñu borom subhanahu wa taala li nga xam ne mooy def di dund mu fajal ñu mboolem luy aajo yi dàqal ñu lépp li nga xam ne moom la def di jiital ci nuyoo beeg ziar bi kilifa bu tedd ku fi nekk di si Moustapha di sëtu bi yàlla ci sax daal sëñ Mamour Sylla di sëtu naan tafsir boobu Sylla moom Serigne Touba. salaamaaleykum. waaleykum salaam di ziar suñu lam di ziar mboolem ñu fi teew ñëpp. dafa mënta ñàkk ñu ñu tudd ñaan ñoo xam ne dinañ leen seete noonu ñu ràññee leen bu baax. ndax tudd mbaaxul nit tamit teewute baax. ndax ñoom yàlla leen baaxal ca azal kon tudd seenu mbaax dool ku mbaax. li ci topp tamit gan gu tedd bi ñu am waaw muy muy gan gu ñëpp noonu taal am muy gan goo xam ne dañoo yokk muy gan goo xam ne yàlla naa samay doom yàlla nañu naan ñu bana ñoo ngi leen ziar bu baax ci la dal di di la jaajëfal bu baax di dëkk yow bu baax di patante yow këllëru bu baax ngir suñ bu baax li fekk nag li nga ne yaa ngi boo ci jógee nag bu boobaa yàlla xam ne xam di leen ziar yéen ñëpp ñu fi teew ñëpp di ci toftal suñu Ousmane mi nga xam ne moom moo ay kaamit bi ñaanoon ko jubloon ci doon ñaanaale rakkam bu nelaw Sénégal fekk ko fa ak ay waajuram ak ñenn ci ay mal mu nekk nit koo xam ne ku baax la Ousmane nit ku baax la kaamil bii li ñu war ñu defe ko fii bi mu ko waxee kër seen làmp loo xam ne fa la koy def muy war a suñ borom wax ci alquran ne adduma ni astajib lakum ñaan leen ma mën a teg ci ne inna lazina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama daaxirin ñi nga xamante ne réy réy nañ ci ci jahannama an ibadati nga xam ne kon ñaan huwa ibadati addu'a huwa al ibada ñaan jaamu yàlla salla wa sallama wax ne addu'a huwa ibadati ñaan yuuru jaamu yàlla ñaan ba tey ak nuuru bayna samawati wal ard ñaan leer la boo xam ne dafay dox diggante asamaan ak suuf ñaan nekk loo xam ne dafa nekk loo xam ne jaam bi day feeñale ak suufiyam jëme ci boroomam mi nga xam ne moom moom lépp te tëliwul dara mu yeggale ci nit koo xam ne dina tax yàlla xam ne sama jaam bi gis na néewu néewu ñàkkuk solom akuk ñàkkam akuk lottam xeeb loolu lépp jëm si ci man mi nga xam ne maa ko bind bind léppam moom léppam ñaan di ko xel boo demee ci lenn ci bokk ci bindi sëriñ mu di ci wax ci ñaan ndax ñaan gi dafa ànd saraxa ngi ci biir muy berne yi nga xam ne moom la def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ittaqu naara walaw bi siqi tamrati aw walaw bi siqi xums doonte ci doggitu mbir doonte ci doggitu tàndal te la nit ñi def di ko di ko bernde mu bokk ci lii bokk na ci sarax mu nekk ñaar ñoo xam ne dafay lënkaloo ci sarax ba impa boole ko ak ñaan ci biir sëriñ bi am loo xam ne daf dañu ko caa tënkal di ci soñ di wax ne amal sadaqatu amal sadaqatu mahal infaaqi fa jamahal xayraatu bittifaaqi saraxe ak lexle dafa dajale yi yaar yiw tuddatoo borom xam-xam yi daal di wax foofu ne waxii la wax nañu borom xam-xam yi wax nañu ne in xadara su fekkee ne teew na yowmal baari bés bi wadduri ba ba ñu sàdd siraata siraat fawqa naari wakkaabadu ba ñu jànkuwante alwara bindeef yi aljawan coono naadaa dafay woote munaadin aji woote malayka dafay woote ne ayna ahlul xidma lil muslimin ana ñan ñu doon liggéeyal jullit ñoom ñëpp ñu tàllal seen loxo mu ne leen indoo ajma indoo jànn dem leen àddina yéen ñëpp dugg leen àddina bi xëy nga xam ne tin wax xëy ci lu àndut ak coono àndut ak fi daal di digle na kon faq dim turam bi laa tawaan li waj yi rabbi yi bi laa taw kon na di liggéeyal nit ñi liggéeyal bindeef ñi ci lu dul taxaw kon loolu nekk lu am solo nga xam ne moom moo ñu fi dajale muy ñaan mu jubli ci loolu kon loolu rat na ci li nga xamante ne njëriñ la ci li nga xamante ne ñaan la ci li nga tamit xamante ne sarax ndax dafa nekk lu am solo inna lazina ينفقون أموالهم في سبيل الله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل العبد أنبتت سبع سنادين في كل سنبلة ما عبد لولو يالا رك كوم نلا جام يالا دو جام بي جيف تي لوتام لاي جيف بوي فاي فاي تي كاتم موتاخ جام بي مني تد بار صاح تي درام دو جيه واي بو ولا ماغازين بو نديخ بام فيس لام فا داف دينا جيه تي waaye suñu boroom na muy fay ñi nga xamante ne dañoo fab seen alal def ko ci yoon yàlla dafa mel ni ku fab wenn fepp ji ko bi mu fabee wenn fepp woowu ji ko mu sax génne juróom-ñaari gub gub bu nekk am téeméeri ba kon loolu day doon lu bari yu daa am li ma nee yàlla mooy pul ci ñu ko sol te pulub yàlla ëpp na kon yàlla na yàlla nangu ko nangu li ñu fi jàng arab yi yëpp ndax alquran na mu toll ci ngëneel arab bu ne fukk lañ ciy fay ba juróom-ñaar fukk ba lay soob yàlla suñu borom subhanahu wa taala alquran mooy lépp adduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne wa iza aradta al dunya fa alayka bil quran wa iza aradta al axirata fa alayka bil quran su fekkente ne adduna nga bëgg jàppal ci alquran maa ngi la koy dégg su fekkee ne àllaaxira nga bëgg jàppal ci alquran wa ida aradta dunia wal axirata fa alayka bil quran kon nit mën jullit léppam alquran sëriñ Tuuba génn ci ne rafaan al quran rafan xasada man shaahu taqdumi fan xasada dara ji yi moo am yëpp ñu xool ne fépp fenn la koy jële mu ne alquran moo ma yëkkati suufee nag képp koo xamante ne rek jiitu gi ma yàlla jiiteel neexu ko ngay suufe rek mooy def la ca loolu jullit bu jàpp ci alquran am loolu ndax yàlla la mu doon maye tëjul ba léegi ak ku mu mën a doon ak ci foo mën a bokk alquran nga nga xam ne ndax bu ñu naan bokk ay tool la yu ñuy liggéey fi mu ne ñu ngi nii Maroc di def daayira ñenn nga Espagne di def daayira tey boo demee ñoo bokk wenn waxtu bu ñu koy defee daji ah, ca kenn ku ci ne ñeenu ñu ci nekk ñay déetoo ña ñëw bokk te daayira ba ñëw ñëw ñëpp yàllaa ngi teewe seen xaal xam fu ñu toll loolu mooy mooy mooy tarixa loolu mooy li fi ne noonu la def ñëpp nag ci yàlla la ñu yóbbu ñëpp nag li nga xam ne moom lañu ñu faf muy drapeau raaya bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi bi nga xam ne yàlla da ko ne lawlaa lawlaa muhammadun maa xalaqtu shay'an bu dul woon ak moom du ma bind dara ba mu bindee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alquran la yëkkati jox ko ko ne ko balix ma am si lay dégg jotalal lii nga xam ne la ñu wàcc ci moom muy alquran kon fa la ñu daje muy tarixa yëpp tey daje ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàpp ci moom kenn ku ci ne la nga am ba sa mbooloo ëllëg ñu di ca tedde fii ci àllaaxira jëm àll fii ci àdduna jëm àllaaxira ci alquran la ak daraje yonent bi sallallahu alayhi sallam kon naka la ñuy def nag ñun ci biir loolu li mu teeku ci sëñ bi da ko wax ndax tasoo mënta weesoo ni nit di def bu baax ni nit di def di tegu ci yoon loolooy tasoo dëgg-dëgg tasoo luñ ci lim lépp bëri na ñeene juróom-ñett la ñeene juróom-ñaar la lépp loolu lépp ixtilaaful ulama rahma luutu kon am na loo xam ne lu bëri sax jarul di weddi lu bëri jarul di weddi ndax suñ borom amul kenn ku mu yar teeg na lépp te dara tëlu tëlu moo tax lépp loo xamante ne dañ ne ni am na rek ku ko gëm ku gëm dëgg dëgg dëgg nag dafa bokk ci gëm dogali suñu borom bi li nga xam ne yàlla dogal dogal na ko nga gëm ko dafa bokk ci ci ponk ngëm yu neexe ak yu naqari kon ñooñu nga xam ne foofu lañ jàppoon ñoom ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy tey yoon yi nga xam ne yëpp tey ñi fi daje tey moom ci loolu rek lañ jàpp tasawuf bi ma doon wax kon leen rek la bàyyi ñaawteef nekk ci lu baax bàyyi mooy yàlla jàpp ci jàmm tas taso bu ñuy wax yoon ne lu mu xuus xuus xuus xuus euh, alxawfu xaw ma xiyaamatu bayna alxawf wa raja diggante ragal ak yaakaar ragal yàlla bi tarki nahyihi wa rajaahu bi imtisaali awaamiri maanaam ragale yàlla ci bàyyi li mu tere ndax ragal yàlla ci bàyyi li mu tere rek lañ koy yaakaar yàlla it na ànd ak topp ndigalam Sëriñ Tuubaa loolu la alamatul ma fi li wa li wa jillaahi tarkul man al euh, alamatul xawf min arrahmaani tarkul nawaahiya li ragal yàlla dëgg-dëgg mooy bàyyi li yàlla tax ca yàlla waaye yaakaar yàlla dëgg nag mooy la mu digle nga ne bu ca geesu dara nag ndax yàlla bu ko neexee nga def def na mu ko waxee ne nii laa ko bëgg te mu lakk la ndax moo la yàlla moom teralab jaamam ak tedd dir ko defewu ko ca jaam ci coobaare iraada wa qudrati bi ci la koy def nammeelam ak dogalam ci la koy def su ko neexee ñëpp di ko mooy mu yóbbu ñëpp àjjana te ay waxam sax kenn mënu ko di ndax du ku ñuy digal samdaaniya loolu mooy maqaamam samdaaniya samdaaniya mooy ko xam ne soxlawoo jëme ci kenn laajoo kenn digal te ñëpp a soxlawoo jëme ci yàlla loolu la toogee suñ borom loolu la nekk motax sañ-sañ kenn amu ko ci moom ndax xataa yonent bi nga xam ne sallallahu alayhi wasallam nee na ko lu ma bind yaata ñaata yoon la wax ak moom ne ko laysa laka min amri shay'un wax na ko ko laysa laka min amri shay'un bu doon nit a koy wax ni dañu naan waaye kii moo ñàkk teg bu doon nit a koy wax ni sa yoon nekkul ci sëñ koo ko waxal moom laa ku doon wax ba nga lu ci sa yoon masalan ca loolu rek laysa laka min amri shay'un loolu la muy feeñal mooy sañ-sañ kenn kenn ko ku dut yàlla rek moom man zal lazi yashfa'u indahu illaa bi idnihi suñ borom rek la kenn du kenn kenn ku ko dul kon topp ci ndigali yàlla yi bàyyi li yàlla tam ñaawum ndox Sëriñ mooy nekk ci mooy yàlla te yaakaar yërmande yi mooy ñaawum njort ak yàlla ñaawum njort mooy jaamu woo yàlla ci yaakaar aji nee na loolu ñaawu njort rafetu njort mooy dangay ngay xam ne kat yàlla lii la tere ndax offati jannati bi makaari wa offati naari bi saxma bànneex yëpp li muy bëri bëri moo wér safara boo toppee bànneex fii ci àdduna topp ci necc necc necc ba mu jeex kàmbul safara ngay daal loolu Sëriñ Tuubaa bi waxu fatin jannati bi makaari nax nax yi ak metti yi ak jafe-jafe yi ak tumranké yi ci jaamu yàlla ak ci mun mo wér àjjana mom la nit di jank jànkoonteel fi ci adina mu metti lool nga bolé ko bi gor gor lu ci yàlla melni ni barab yi nga di ca teew di lu ci say farata gor gor lu ci say def yu baax lu ci lépp lu mu metti metti metti metti mu mu jékkoo àjjana ndax bépp tedd nga bo xam bépp teraanga boo xam ne safara lay mujj du teraanga tedd bi bépp teraanga boo xam ne bépp metti bépp coono boo xam ne àjjana lay mujj du metti du coono teraanga ci ci li metti ci la ab jullit jàpp duniyaa sijnun lil mu'min wa jannatul kaafir kaso nag ñaar yooyu sëriñ bi da koo wax da cee da cee leeral ci sijnun lil mu'min wa jannatul kaafir mu ne ndax ki nga xamante dafa nekk ci àjjana dafa dafa nekk ci biir kaso kooku génn ga day neex ci moom kon moo tax génn ga la muy bàyyi moo koy génne fa mu ki nga xam ne nag dafa nekk ci àddina ca nga xam ne àddina àjjanaam kooku génn ga day metti ci moom looloo waral sukkuraatam di metti fii ci àddina ab yéefar buy akum naafeet buy génn àddina day metti ci moom foofu sax moo jëriñu ko ndax ab yéefar boo demee ca saar wala nga xam ne mooy bàqara ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون فوف جلت يعني نون كوي خول سا بوب فوف كوي خول غدوغ سي ماندار غام ييفال ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم ولا سمعهم ñoo ñooñu ñoo yéefari kon kooka da tey placé li ëpp nag ci jamono ci biir jamono jii ñu nekk nii naafeq màndargam naafeq moo fi des ndax ku ku weddi moom xam nañ ne wedd na ku gëm it xam nañ ne gëm wa mina naasi man isa man man man wa mina naasi man yaqulu aamana qaalu aamana wa isa xalaw ila shayaatiinihim qaalu inna maakum inna ma yastahsiruun waaye kat yàlla nee na الله يستعزم بهم ويمودهم في طغيانهم يعمهم نحن نيو ليغا خامتاني كات نيوم دانيو دانيو دانيو دانيو بونيو بونيو ويته نيك جوليت ييب دانيو نا گمنا واي سوني ويته نك با دلو نك كسن شيطان لا ني واخ نيون كات دانيو گمنا اند اك نيوم رك با دنج نين دون ييجي واي ييجي نيو كات يالا نينا نيوم بارانا دي نيوم نيوم دانيو جاب ني مان لا نيو ييجي واي ييجي نيو بارانا لولو مو جير لي جنتي كو نفه بوبو ني گوب la koy dugal nit nag yomb ñett la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne mooy màndarga koo xam ne bu waxee wax lu dul dëgg boo ko wóoloo mu wax la bu duggee bu bu bu joxee rendez-vous bu poos ñett yooyu ñett ya dikkiwaat ci ne bokk na ci ñetti ajjuma yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ne koo xamante ne faat na ko ca julli jiwu ko ñu bind ko ca diwaanu munaafiq ñu boole ko ca naafeq ñetti jumaa yu tegal kon la cay dugal nit bari la cay dugal nit ci naa fekk bokk na ci feeñal loo xamante ne ci biti la dëppoo ko biir nit ki dafa wane ni Sëriñ Tuubaa dafa wax ni lisaanu dafa wax ni sama jëm ak sama làmmiñ ak samay wax yëpp dëppoo te ab jullit noonu la war ay waxam ak i jëfam dafa war a dëppoo loolu mooy dëgg dëgg jullit nga xam ne dafay am pas-pas ci boppam yemale ne su ma wéetale ko su ma wéetee lépp yàlla kat mooy ki nga xamante ne laa tudrikuhul absaar wa huwa yudrikul absaar wa huwa latiful xabir bët kat du tegu ci moom xanaa aynul xel waaye kat nga xam ne kon wa huwa yudrikul absaar laa tudrikul absaar wa huwa yudrikul absaar bët du yegg ci moom moom waaye moom fu nit nekk mi ngi jot yow ngaragal yàlla xaq tuqaatihi wala bok xaq tuqaatihi mom wax nañ ne mom mandal ga mom wess na ci jamm jafe jafe na ci jamm xana ñu néew ko am waye mastata tu ko li li sa kem tu lay kanta ragal yàlla kem tu lay kanta moy dara ji di gëna suufe ba ca gëna mag xaq tuqaatihi yàlla nañu yàlla defal xaq tuqaatihi jam bi wara yamale li nga xamantene mom la yàlla gis ci mom ak li nga xam ne la nit ñi gis ci moom sëriñ Tuubaa wax ne fal xalqu yansuru ila ma alana wal xaaliqu yansuru ma xabbatana nit ñi li ñuy xool mooy sëñ fay mi kat mbubb mu rafet la solo kaalawu ah, bàyyi sikki moom ku ko gis nga màndargaal ko mu mel ni nit ku baax yàlla xoolut ko jëmm ji na ne nukk tilim yére yi xotte ko mu soddi sagar ca ragal yàlla ci biir kookee lu wàccaayam ba ñaaw ñaaw ñaaw rafet moo tax mu ne xal xalqu yansuru ilaa ma ilaa ma xalana wal xaaliqu yansuru ilaa ma batana nit ñi ñoom li ñuy xool mooy lu rafet ci kaw yàlla moom li muy xool mooy sa xol kon nit ki na soxla woo xol defar sa xol ci tagat sa xol ba xamne fo meuna ne bo wété bo wéetee le ko nga xamne suñ borom subhanahu wa taala min bés dina ñëw nga bés dina ñëw mu melni yow rek la bëgg wa kulluhum aati yawma qiyamati farda kenn ku ne ci yéen dina ñëw yawma qiyam mel mom dong ci kanam ya kon lolu lañuy ñuy xel kenn ku ci ne lay bàyyi xel ne fu mu ne yàlla mom mu ngi contrôler mom yàlla am na ñu mëna la maa yalfisu min qawlin illaa ladayhi raqibun atid amul benn wax bu nit di wax lu dul raqib ak atid ñu ngi fóogóorlu di bind sa wax yooyu imaam lii nekk lu baax ñuy bind ko wala ñeneen bind kiraaman kaatibiina yaamaluuna maa taxaluun xam nañu lépp li nga xamante ne moom kon li ëpp ci nit ki mu war koo def mooy ragal yàlla ci zaahiram ragal ko ci baat suñ lamp waxtaan na ko ci wenn waxtaan mu jàll ne ragal yàlla na ngay fenn ci juróom-ñaari cër Sëriñ Tuubaa la mu ci wax is kullu adwin saahi min ha xaabala baaban min al bibaani fii maa qad sabab wa kullu adwin asaytu abada min ha biha biha biha tadxulu baabaha xadar dafa wax ne cër bu ci nekk ci cëri doomi adama yi mi ngi jàkkaarloo benn bunt ci bunti sax te bépp cër boo xam ne mooy ne ci cër yooyu rek ñu ñu mbugale ko ca buntu safara suñu borom subhanahu wa taala baaxi na bunt yooyu nga xam ne jëmmi doomi aadama yooyu nekk juróom-ñaar bunti safara nekk juróom-ñaar yàlla gënee la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci wàcce ci xeete bi jox ko faatihatul kitaab nga xam ne faatiha day fàtt bunti safara yooyu yàlla wooy sàppul taqi abwaaba kullu naari tajuudu bi dirhamin wa dinaar لقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زحمة الحياة الدنيا ba aaya ba jeex noonu nga xamante ne ni la Faatiha mel saafara la ci ñun bokk ci ndàmpe ci ndàmpe ya nga xamante ne ci anas la ne nga xam ne ñun la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ñun ñi nga xam ne ñooy us ummatul muslim ñooy xeetu bàkkaaru yàlla di rabbul xafuur يبل paat jox paatiha يونس بن صلى الله عليه وسلم ci aw xeetam nga xam ne istixfaar lu ko gën a kawe istighfar istixfaar amul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne nit ki bu waxee ne alhamdulilahi rabbil alamin dafay fat benn bunt ci bunti safara mu wax ne arrahman arrahim mu fat benn bunt ci bunti safara bu bunti yëpp jeex faataatul kitaab nekk loo xamante ne suñu toogoon bi ci wax mu ne su ko jaar la tax ñu ñu ñu boole ko ci wax dafa am lu ñu mel ndax ñun dañoo nekk jamono bu yéeme boo xam ne mooy yàlla moo gën a ndax liy sabab lu yóbbu nit gën a dama yàlla baal barke moo am ci liy yóbboo aljana waaye liy sabab lu yóbbu moo ëppati ci jamono nit ñi léegi dafa am feebar bu nekk ci nit ñi muy matériel muy am-am nga xam ne moo nekk ci nit ñi nit ñi nu ñu ko amee baax na seetu nu ñu koy amee nu ñu ko mën a amee rek baax nañu nax nit ba def ko na ñu rey nit def ko nañu wax nit lu dul dëgg ba am ko na nañu jaay seen bopp ba am ko nañu jaay seen diine ba am ko nañu jaay seen ngor bi am ko ca loolu lépp nekk ay sabab yoo xam ne ca loolu bés day ñëw boo xam ne lu mu la teraloon dina la tedd ca jaas moom bés penc aatiyatun laa rayba fiihaa day ñëw ci lu dul jaas te fa muy ñëwee kenn bàyyiwu ko xel kenn kenn kenn kenn mënu koo pare pare ba ñëwul la laa yaati ilaa bi bàq bi ñëw du ci mbett des bi rubamaa yakunu saa shawaakir bëri waa na sax bu mu lay fekk ci ay yitte yu bëri ay projet yu bëri yu yedd loolu nag yebbe nit bëri bàkkaar kon te biir bëri bàkkaar yooyu ñu am ngëneel lu toll ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu baaxe joxe ko nga xamante ne istifaar la ci comme na ma ko waxoon ne ko du ma leen buggal mukk te fekk li fekk yaa ngi ci seen biir du ma leen buggal mukk te fekk ñoom ñu ngi istifaar istifaar jëmmi yonent bi la ci ñun istifaar jëmmi istifaar ci boppam istifaar la subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar yooyu yëpp bokk ci li nga xamante ne dafay taxawee istifaar di taxawee la mboolem li nga xamante ne xeet la yoo xamante ne dafay dafay fuur ay bàkkaar di sellal room di ko yeggale ci yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam fàggul ñu ko nañ ci jàpp ci bàyyi xel yàlla te xool lu ñuy tere di ko daw lu ñu mën ci suñu wéet ak suñu wéet la suñu wéet ndax bi nga wéetee bu la wóoree boo wéetee xalaat ne sama wéetaay wii dinaa ko wéet ci bàmmeel man doom boo wéetee xam looy xam la wax ndax fi nekk xalwa weesu xalwa mooy wéet ci koo xamante ne yow dang dang faa nekk wéet faak yàlla boo koy xool ci ahlu tasawuf xalwa am ndax nit wéetu ndax foo nekk yaak yàlla yéen ak sa ñaari gaay yi nga xam ne ñu ngi la topp muy ràqib ak ati kon nit ki ahlu tasawuf dañuy jàpp ne ñoom fu ñu ne xanaa nit ñaa fa newut waaye wéetu ndax ñu ngi ñu ngi yàlla lan lool amul ñaar ñuy déyante lu dul ma ñetteel leen amul ñett ñuy déyante lu dul ma ñeenteel leen ba ba ba ba ba mu nga xam ne kon fa nga nekk yow jaam bi yaa ngi ci yàlla te yàlla mu ngi la booleeg ñaar ñu lay contrôler di la déglu di la bàyyi kon wéetu wéeti la ku googu bu fekkente ne foo wéete sa xel a ngi gis ne suñu borom kat mi ngi ne jàkk ci man fii kon looy wax duñ ko duñ ko xam looy def duñ ko kon nañu gën a góorgóorlu bu baax ñun ñëpp ci bokk yam kenn ku ne fa mu aju narooy liggéey bi dañu koy digal ca fa mu bokk lañu koy tere na ko bàyyi sax ci jàpp ci alquran jàpp ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soppante bëggal dëggu dëggal ci li nga xam ne mooy ndax dox ci suñu dem dina rawatina dëggu dëggu nag la koy feeñal mooy dëggal te la ngay jëflante ak jullit yi ñi nga xamante ne moom na lu mu yàq ci jamono nga xam ne nit ñi day dema ba kenn xamatu fu muy teg tànk tey jàpp nañ ne tey suñu maam mii su ma foroon million am tey dama naan ah tey de taw fekk tey de sama mbir baax te moom mu ma ko maam moom suñu maam moom mi moo ko moom loolu defatuñu ko muy dara léegi te am na loo xam ne ci xeeti jaamu yàlla dafa mel ne toj toj ab quartier ngir tabax benn nit nit ki ak lépp lu mu mën a dem boo bu fekkonte ne dama am benn mbokk taale bi mu mës mës naa wax mu ne dëkk bi dafa mel ne ma sëñ fay ndax bu ma demoon ci baat di liggéey man sama xale yi ak ni ñu demee nii ak jafe-jafe yi ma toll fi mu ne nii xanaa su ma amoon tey tey man mun ma jëlee ci otel bi ma dem di servir di servir ci baat bi di ci yor sama waa kër ne xanaa yàlla xanaa yàlla loolu du ma ci jàppee dara ma ne ko ah kay ma ne ko kon kay bu doon loolu rek ñëpp ñëpp jaay sàngara nag wax dëgg yàlla ma ne ko nit ki ma ne ma ne ko alal joo gis la ko sos ma ne ko jaay sàngara mu ne ma ne ko ña nga xamante ne ñoom lañ ci mujjatu mooy kay lekk njëg kooku yoonam nekk ci ki nekk ci kër nga xam ne kay baan daa dem liggéey rek ba fayeeku weer ñëw ah wala wala daa dem ba jaay sàngara am ñoom jënd teebam moom mu lekk te xamante dara bu te bokkee kon ñeneen taxu te nit ñi ñu bëri bàyyiwuñ ci xel fi ne tey bu ma ñëwoon fexe ba nax sëñ maam moom mi dem di ci tabax jumaa sëñ maam war a moom jumaa suñu borom dafa maam moo tax sëriñ bi wax ne wa yàqu wa yàqaxu alqisaasu bayna jàmmam wa bayna xarnaana ne àddilin sàmm yàlla suñu sëriñ Tuubaa wax ne yàlla ëllëg dana wàcce àtte ya ca diggante njëkk ya ak borom béykat am njëkk mooy naat bu amatu béykat ba bay na xarnaa ak borom bay jéem li àddilin sàmma ngir maandu teg yàlla foofu nga xam ne nag bi nga xam ne am dooni bay sax daañu ko sampali bay jéem mu fayu la ko morom ma def loolu nag da ko jàngalee jaarale ko ci bàyyi ma waaye ci ñun nit la ci li nga xam ne lañ seet ci suñu biir kon loolu la am ci lu ma ci wax sëñ bi yegg na li tax ma gën koo guddal di wëndeelu fu ne ma jaar fa doon xaaral la sëñ bi la waxtaan moom moo bu fi nekkul nag ñun dinañu taqale ba luñ ci génn kon euh, kon nag al amru bi yadika euh, yëf ya noppi naa ko borom ñun jëlal sa mbaxane yi noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp kuy wax boo xasee génn nga nga réer ak sëtam mooy moom kon ñu yees ni salaamaaleykum wa rahmatulah. yéeg naa ba ci ba ci ba ci kaw a kaw kañ gis ma kenn mën a amante. ma yaakaar ne kenn seen lamp la sax. gis ma kenn dañoo xalaat ne day baax na baax na